leen di loo xam ne ñoo xam ne da leen di jëfandikoo ñooñee nga xam ne ñoom lay jëfandikoo itam wute nañu li nga xam ne mooy xew ci doomu aadama yi ndax xam nañ ne soldaar yooyee nga xam ne moom la suñ borom am ñoom doonuñ ñoo xam ne ñuy sonn lañu doonuñ ñoo xam ne ñuy tayee lañu doonuñ ñoo xam ne itam amul am na jenn itte joo xam ne dana mën a dox seen digganteeg lañ bëgg a def ndax amul amul benn itte amul benn soxla amul dara lu leen di gaar itam luy tax ñu la nga xam ne moom lañ war a taxawee duñ ko mën a taxawee ni ñu ko war a taxawee wuutee nag ak li nga xam ne mooy soldaar yi àdduna yi xam nañ ne danañ danañ am léeg ñu tële xam nañ ne léeg-léeg ñu wuute xam nañ ne léeg am na lu leen gaar loo xam ne dana tax la nga xam ne nañ moom la ñu war a taxawee duñ ko mën a taxawee ni ñu war a taxawee loolu du ñu woon nag kon ne suñ borom moom jël na ay matukaayam yu mat sëkk ci ñi nga xam ci doomu aadama yi ba li nga xam ne moom la si moom la bëgg ñu def ko li lay matukaay yi tax ñu war a def li ñu war a def lépp itam te di ko bàyyi xel moom suñ borom ji suñ borom indi na ko bokk na ci itam bi nga xamee ne suñ borom xam na xam na ne ñun gëm nañ ne mooy suñ kilifa xa gëm nañ ni itam mooy ki nga xam ne mooy kuy war a war a war a jaamu waaye gaamu yàlla googee duñ ko defee ci suñ xelum bopp duñ ko defee ci suñ gis gis-gisu bopp waaye dañ koy defee ci ni nga xam ne ni la ko suñ borom bëggee suñ borom nag jàkkaarluwut ak kenn ku ne di la wax ne nii laa ko bëggee waaye dafa yebal ay ndaw yoo xam ne ñoo ni moo ñoo nuy wax nan lañ war a jaamoo suñ borom mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay yonent ñooñee nag andi na boole na leen ak ay téere yoo xam ne moom lañ andi ngir ngir wax suñ borom wax li nga xam ne moom suñ borom bëgg ci doomu aadama muy wane ne xam ne yonent yooyee ñoom itam la ñuy kawe kawe ci suñ borom itam amul lenn loo xam ne sañ nañ koo digle wala ñu sañ koo tere ci lu dul lu tege ci li nga xam ne moom la suñ borom bëgg ak li nga xam ne moom la suñ borom ak ak li nga xam ne moom la suñ borom tere di suñ borom tere balañ ko li ñi nga xam ne balañ suñu ñëw tere kenn lu dul ne yo suñ borom moo leen tereloo sañu ñëw digal kenn itam lu dul ne suñ borom moo leen digaloo ñu ngi war a gëmm itam ne comme suñu borom dañoo xamal ne ñun ñii day day am loo xam ne moom la ñu wàccee ci àdduna si mooy bi ci njëkk mooy ñu ñu nangul suñu borom ne ko yaay suñu borom ba ca teguwaat mooy àdduna si nga xam ne moom lañu nekk itam ñu di ko jëfandikoo. ci ni nga xam ne ni la ko suñ borom bëggee ñu jëfandikoo ko xéewal yi fi nekk sañ nañ koo jëfandikoo waaye nag nañ ko jëfandikoo ci ni ko suñ borom bëggee sañu koo jë sañ koo jëfe rek ci suñ bànneexi bopp wala suñ suñ gis-gis nit waaye dañ koy jëf ci ni nga xam ne ni la ko suñ borom bëggee loola nag xam nañ ne képp koo xam ne daa am lu ñu lay def loo war naa am bis boo xam ne da war a taxaw rek ñu laaj la la nga doon def nan nga ko doon defee ak loolee nga bàyyi naw ko lu tax nga bàyyi ko loola moo tax nag bis bis penc mënut a ñàkk ndax comme dañ ni jëfloo ku jëf jëfloo ku ne jëf ji doon doon lay continuer di wéy waaye dafa war a dafa war a am fu mu yem bu ëllëgee ñu taxaw la laaj la loolee nga doon def nan nga ko doon defee ak li nga xam ne bàyyi nga ko lu tax lu tax nga bàyyi ko loola nag mooy kon dañoo war a gëm ne bis penc dana ñëw te itam amut sikk ci ne dana dana dana ñëw gëm itam ne lépp loo xam ne gëm yëpp ci li nga xam ne dana xew foofee ci bis penc ba moo xam muy aw yiw woo xam ne moo xam muy ak pay goo xam ne dañ koo def ci lañ war a def mu fay suñ borom fay nu ko wala mu doon mbugal moo xam ne dañoo ñàkk a def la nga xam ne moom la suñ borom digle mbugal moo war a ñëw am na ay kër yoo xam ne itam ñooy këri pay ya ba ca njëkk mooy këru pay ga mooy këru pay ga mooy ajjana përu këru mbugal ga mooy sawara ginnaaw yooyu itam ñu gëm ne lépp loo xam ne comme suñ borom dañuy jëfloo te li te ñu xam ne ku ñuy jëfloo ku ne war nga léeg-léeg mën nga am yooyu dugal ca biir yoo xam ne bokkut ak la ak ka lay digal def bëgg nga def ko waaye moom suñu borom dañoo teel la xamal ne lii maa ngi leen digal de nag maa ngi leen di digal waaye nag na ngeen xam ne munu leen a def lenn lenn lu bokkut ak li nga xam ne moom laa leen digal ngeen ngeen bëgg a wane ne ma ñoo ngi koy def te bokkut ak ni ngeen ko war a defee wala yéen ngi bàyyi loo xam ne maa leen ko tere ngeen di ko bàyyi te la tax ngeen ko bàyyi bokkut ak nga xam ne ni laa leen ko ni laa ni laa ni laa ni laa laa waxee ngeen bàyyeekoo ne na mooy amul dara loo xam ne lënt na ma ci kaw suuf amul dara loo xam ne itam nit sañ na koo def ci kaw suuf walla lu man di doon te doonul ne dama caa dama dama caa dama ko jox kàttanu bu mu ko mën a defee dama nangu itam loola mën a am kon loolu moo ñuy xamal kon ne gëm gëm dogal mooy xam ne suñ borom mi nga xam ne moo nu sant ñu jaa war koo jaamu war a jaar fi nga xam ne fi la bëgg ñu jaar fa moom moomee day dara ump ko dara lëntul ci moom ndax xam na lépp boo bëggee wane ne ab jullit nga ba noppi te la ngay def doonul fa mu war a teguwut fa mu war a tegu bu jàpp ne yaa ngi nax suñ borom ndax suñ borom xam na lépp boo jaare boo dee ab jullit nga ba noppi ci bàyyi dara te loolee tax nga bàyyi ko loolu tax nga bàyyi la la nga bàyyi bàyyiwoo ko ngir yàlla itam bul jàpp ne yàlla xamul ne la nga bàyyi bàyyiwoo ko ngir moom kon xam na lépp kon dañuy won ne moom kenn mënu koo njublan kenn mënu koo nax kenn mënu koo jaar feneen fu fu bokk fu bokkut ak fi nga xam ne fi lañu war a jaar képp looloo nag li ñu li ñuy wan ne pas-pas yii dañ ko war a gëm moo di ne jibril ah, dafa mas ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj lan mooy gëm mu ne ko nag gëm yàlla gëm mooy nga gëm ne yàlla ku nekk la gëm ne yitam ne malaayika yi ñu am lañu gëm ne yitam ne téere yi suñ borom moo leen wàcce gëm yonante yi ne itam suñ borom moo leen yónni gëm bis penc itam gëm dogal moo xam dogal boobee bu neex la wala bu naqari la sëñ suñ Tuubaa yi ñëw nag di leeral loole ci tasawudu subaan di wax ne seen gëm yàlla mooy lan mooy ngeen gëm ni yàlla lu nekk la gëm gëm itam ne malaayika yi ay soldaare suñ borom lañ gëm ne itam téere yi nga xam ne moom lañ moom la suñ borom wàcce téere yooyee ñu ngi jógee suñ borom gëm yitam bis penc gëm itam bis boobee nga xam ne bis tiit la bis la boo xam ne kenn ku ne la nga doon làq wala la doon nëbb suñ borom dana ko jaa dana ko won ci kanam doomu aadama yëpp ñu gis ko kon loolee lu mat a bàyyi xel la xam na it la nga taxoon nga di ko def xam li taxoon la nga doon bàyyi nga bàyyi ko kon nañ góorgóorlu bu baax a baax ci ragal yàlla tey bàyyi xel suñ borom nañuy bàyyi suñ xel bàyyi xel suñ borom ci lépp loo xam ne ñoo koy ñoo ngi koy def wala ñu di ko bàyyi nañ doon loo xam ne suñ borom a tax ñu di ko def wala la bàyyi itam na doon loo xam ne suñ borom moo tax ñu di ko bàyyi ñu di ko bàyyi ñu ngi jéglu suñ boroom nag mi nga xam ne mooy tey tuub ci suñ borom mi nga xam ne mooy te tuub goo xam ne dañ koy xamal ne ko yow suñu borom day xam nañ ne ay jaam lañu yu doyee di yoo xam ne dañ laa tooñ tey dañoo te kiñ kiñ tooñ mooy seen mooy kilifa mooy seen kilifa kon sañ nañoo ñëw ci moom ngir tuubal ko jéggalu ko xamal ko itam ne ko nag mënun dara ci suñ bopp ci ak ci jañ loo xam ne nar nañoo dal mënuñ dara ci suñ bopp ci indi xéewal goo xam ne bëgg nañ ko lépp yow sa loxo ci yow la nekk kon nañ bàyyi xel loolu ñoo ngi jéggalu suñu borom nag di jéggalu doomu aadama yëpp yàlla nañu suñ borom boole jéggal yàlla nañu suñ borom borom boole boole boole doole boole ba jàppe nu jàpp jéggal nu ci te bañ ba toppe ci ak maanaam waaye mu topp na ci yërmandeem ak njéggalam te yërmandeem ak njéggalam yaatu na lépp yaatu na ci ñëpp nag waaye nag dafa wax ne ak fa yi na lillazina yattaqun ñi nga xam ne dañuy jéem góor góorgóorlu di jaar fi ñu war a jaar ñooñe laay jagleel njéggal ga ak ak ak tuub googee ak yërmande jooje kon ñu yal nañu suñu borom defal yërmande yal nañu suñu borom jéggalal boppam te xam ne ay doomi aadama lañ ñu matadi yu yu mënta jaar fan war a jaar yoo xam ne itam yu doye di lañ yoo xam ne fañ war a tegg itam léeg-léeg ñu jaar fa te loolu lépp matadi doomu aadama rek moo tax ñu ko def xam nañ ne suñu borom mooy suñu borom rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada rabbana la tuzigh qulubana ba'da sa hadaytana wa hab lana ko ladunka rahmatan innaka antal wahhab